dañuy xool adversaire bu gën a redoutable duñ ko attaqué frontalement l'adversaire le plus redoutable le plus craint à l'heure actuelle mu neex leen mu naqat leen seeni sondage moo leen ko wan muy Ousmane Sonko Sonko la ku ko weddi rek na ngeen bàyyi ñëpp dugg ci biir bi bëre ñu xool ku mën c'est aussi simple Marwan bu Jeune Afrique tout le monde sait comment fonctionne Jeune Afrique ñëpp xam nañ ko publier naa ko sama page su Mediapart wax na ci ñëpp wax na ci ñuy jéem a garaaw garaawlu na dañuy analise yaa ngi pari mais lépp loo am yaa ngi ko amee ci dóor président africain yi chantage leen dëkk bu nekk ci guerre sax mën nga ñëw def leen publier reportage quatre pages wala cinq pages ne tout est calme non la bayam don def maroan ñew na nak senegal après Robert bourdi dina ñew ci Robert toujours ñew toog way le meilleur candidat de Macky Sall c'est Amadou Ba ça is up to themselves une affaire la c'est nous mbiru bir la bu ñu tolloo ci wax ci rek parce que man duma dugg ci cuisine interne Benno bokku yakar na ci am avis nak moom président laajoon kan mooy meilleur candidat pour ñun <laughs> dinaa ko wax na ko yéen <laughs> boo leen bëggee am yaakaar yaakaar laa wax de naa ne kii moo tane ci yéen mais rek li ma sama benn xarit doon wax leen dama o pap bu sax dugg ma leen dugg ma ci yéyu ma ci yàbbiwu ma ci voilà Marwan wax na foofu mais par ricochet soo xoolee Marwan, est-ce que Jeune Afrique a constaté qu'on a séquestré Ousmane Sonko de manière illégale pendant 50 jours dans un État qui se dit un État, dans un pays qui se dit un État de droit Non, malheureusement. Marwan, c'est un mensonge que de dire que Ousmane Sonko a refusé de déférer à la justice. C'est faux. je vous ai expliqué ici la dernière fois Sonko fan la dan dem le 16 biñ ko sottee liquide bi Sonko bañ koy consulter même 16 bu fan la nekkoon du tribunal fan la ko doyen des juges entendre bañ ñu renvoyer donc xam nga donc xam nga buy wax respect des institutions le lieu il est en mission commandée on sait tout à l'heure actuelle dafa am un système boo xam ne dafa amoon da apeuré ñu war a wala ñu war a pour ñoom ne joué ngeen ci rôle wala ñu pour me suis personnalité wala non lu yéen yéenay décidé kan sénégalais yi war président de la république parce que sun réew mi dara France bi leen ñu du ñu

xanaa nekkatul démocratie ak ay xob yu ñuy wàññi damay laaj Macron ba tey jii mënaluñ ko dara gauche bi pratique inexistante droite bi ñu ngi kërti kërti l'opposition a pratiquement la majorité à l'Assemblée nationale mënaluñ ko dara dafay métti population bi sax ñooy gën a xeex ak moom que les Je ne fais pas les éloges de Macron, hein, mais je constate une réalité. Il est venu tout jeune. bouleversé le toc. marwan Niofi, vous bëgg Dada, làkki ay marwan il faut tu te ñun kenn duñu tànnal te li ngay argumenté ñun analyse yi ñun nous, ko dund ñoo la ko gën a xam te amuñu benn complexe parce que Jeune Afrique nga on sait comment fonctionne Jeune Afrique daje nañ ci Alpha Condé jaay ngeen troisième candidature Alpha Condé ak ay édito yu dul jeex Palais Sékou ya j'ai croisé une fois là-bas pas Marwan François Soudan je crois kon bëgg ñooñu ñuy yónni ñu ñëw en mission commandée pour dim di ñu jaay benn truc yooyu ngeen toog boy yi dégluwuñu leen faalewuñu leen boy yi boo leen génn ñoo ne kuy marwaan xam nga dafa am l'époque de Benjamin c'est révolu ces histoires là oui am benn pouvoir contrôler fi aujourd'hui ban journal moo fi mën a toj dëkk bi Adji sar jaay nañ ko jaay jaay viol viol viol viol le dossier Adji sar viol viol viol viol viol viol viol viol viol ci à l'espace de même quelques 3-4 actes la ñuy posé rek alors, na li yëpp c'est cousu de fil blanc ngeen dem le juge ba juge bi na leen <tsk> menace de mort ak viol bi dal xaar tek ko fee mais xaar ma def benn sorcellerie judiciaire corruption de jeunesse bref xam nga ñu waxanti deug rek te yalla tax sans aucune pression et puis dund ko nak ak responsabilité may sénégalais ñu dem ci ay élection ñu ñëpp war a bokk bokku ci léegi sénégalais yi ñoom ñooy tànn wala ñun ñoo war a xalaatal sénégalais yi na leen def leen léegi lii même ñun dañuy wax suñu xalaat point barre mais duñ leen wax ne diw ak diw wala diw moo gën non motax ñu bëgg benn débat bu am sérénité débat bu calme campagne bu neex te loolu xam ko ñu ko mën a may Macky Sall mun a tag eh bon léegi je vais essayer de sortir par la grande porte parce que j'ai eu j'ai eu à faire trop de mal doy na sëg ma rafetal li ma fi dese kaa leen ñi fëgg seen dënd di wax maaman kaay leen yéen ñëpp lamb jaa ngi nii ku nekk na nga tuus ngeen sëgg gëbëre sénégalais yi xool ku dàq tuus mooy ku gën a indi projet bu gën a rëy ap ngeen léewtoo doron tay crochet gauche droite ñëw toog après ñu atté sénégalais yi nag arbitré tànn ku leen neex loolu lañu bëgg du leneen Robert Bourgi dama ci tay dama cee wax a wax ba tay ci fokaar ba tey jii wala Robert ñëw nañu gëmloo na Macky am na droit deuxième quinquennat Macky Sall na defu ko mu ne c'est un grand top même la France était contre xam nga tax may wax loolu parce que France gëmatuñu ay Robert Bourgi yi xam nañ ne c'est des faux sorciers xam nañ jàngat nañ bu baax a baax na Afrique léegi la jeunesse est éveillée te liñ bëgg moo di ànd nawle ak France liñ bëgg mooy français yi xam ne na ndax nag bu ne dañuy jaay yenn partenaire parce que au nom de quoi la France Macron passe tout son temps à faire des tournées de la invité non 14 juillet bi passé moom bu ko nexe mu nekk ak Allemagne bu ko nexe mu nekk ak Inde bu ko nexe mu nekk ak Chine mu nekk ak Taiwan. bu ko nexe mu nekk ak ñun mais ñun non ñun ñu multiplier une partenaire économique si on va le faire au plus offrant Lolo yoon lu ñu d'accordul ak France d'accorduñ ci Robert Bourgi lenn rek mo nekkoon rôlam porteur de malet ku xam-xam dara fokar jàppale ay nit amna ñun fuy coup d'état am na ñeneen ay ay leader de l' opposition en Afrique yu ñu jël seen mbakk xam nga kuy kuy bàkkoo fokaar ak ñaaw ñaawteef yu mu def ci Afrique ci ay nit ay leader politique charismatique yu ñu boom yu ñu rey nga ñëw mere Ali Bongo lu tax parce que papam nga daan manipuler Omar Bongo Ali Bongo ñëw arrêté ko nga dem ci Jean Ping am kilo toog ci France 24 di wax ne d' ailleurs on a jamais organisé des élections en Afrique. C'est la France qui proclamait des résultats. Mais c'est insulter cette jeunesse africaine éveillée. Quand Robert regardez-moi, talk. Et te ñuy Marwan Marouane, wala Robert Nio, tax Boy change mind de xamuñu ñi ça? yow yaa leen expliqué parce que man après booy def ma grand Marwan ma expliqué Robert ma ne voilà comme nii toppatawun ñii sax